way samay grand lañ yéen samay grand ngeen alhamdulilah macha allah maraban Cissé alhamdulilah Hello. قارن شيخ بسم الله ناس بسم الله يا انا سكرتيري اه شيخ ناس ما الشيخ ناس مو ابو بنو بسم الله آه. اوكي اوكي اوكي اوكي آه، باهنا baax na baax na baax na ah. xaaral ñu laaj la ah yéen yéen a war a wax la si 11h mooy sax 11h laaj lan ngeen waxtaan ci mana yi du euh, wax rek rabbil alamin maa ngi sant yàlla di gërëm peuple que Sénégal gi yëpp waaye maa ngi gërëm rawatina sama mak Cheikh Abdul Malik mii nga xam ne doomu Cheikh Ibrahima Niass la ñëw fekk si ma ak sama doomu nga ma gis-gis maak moom muy Serigne Aliou Niass ma ànd sama sët. muy Cheikh Tidiane dofu maam xalifa ànd ak jàng baay mi nga xam ne muqaddam la waaye ci biir loolu Cheikh Mourtada waaye ci biir loolu yëpp maa ngi ànd ak monsieur le maire bu Kër Massar muy Adama saar nekk taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ñëwee fi en tant que maire waaye dañ fee ñëwee en tant que li ñu bokk ñu muy kër Mawlana Cheikh Ibrahim waaye di gërëm Cheikh Siñaan bu baax ak borom Jaase ji Njaay su ma tuddee rek damay juum waaye lu ma mën a wax ni mooy na lépp loo xam ne rek luñ ma waroon a laaj la tontu naa ko lépp lu nga xam ne nit ñi ñu ngi ci doon ñaaw njot joxe naa ko la ca des nag bàyyi nañ ko ci loxo yoon yoon àggale liggéeyam loolu laa amoon pour wax ko di ko wax ñëpp li ci des nag pour ngeen gis ko incha allah point de presse bi di ngeen ko gis loolu laa amoon di wax point de presse bi danañ ko def incha allah lépp lu war a dem rek dem na ci monsieur le juge wasalaam loolu laa am pour wax ko